waa ndaje bi li ko waral tey comme ñu dañoo yàgg di liggéey ak femmes yi di liggéey euh, groupement des femmes en même temps di liggéey ak réseau national pour le développement de Sénégal ba tey ñuy liggéey ak mbootaay moo tax ñu bëgg dajale bépp boo xam ne rek ko xam ne rek bokk nga ci bureau bokk ci bureau ba ñu jël la bëgg a toog defaraat suñuy toogaay daal. xolaat fu ñuy tek suñu tank defaraat suñu bureau sétat nu ñu gëna japp ci social bi ak développement comme ñun dal ay femme de développement lañ ci développement lañuy yëngu ak social ci la ñu nekk guddi ak bëcëk eh, dajale fami légui sax dañ ko yaatal ba goor ñi ñepp ngi biir motax ñu tuddé ko dañ ko tuddé won association des femmes pour le développement de Mbour léegi ñu dem a dem ba mu gën a yaatu gox-goxaan yëpp di ci bokk fu mu ne nii responsable yi nekk Pire dakaar Dakar ak Thiès ak ñoom ñëpp Tivaouane ñëpp ñu ngi fi léegi ñu tuddee ko réseau national pour le développement du Sénégal. waa ñun développement dañ cee yàgg dañoo yàgg ci développement nañ ñu loolu lañu nekk ndax dañu liggéey ak femmes yi dañuy def ay groupement sama formatrice sax ñu ngi fi ñu naan ko Awa Anne Adja Awa Anne mi ngi fi mooy suñu formatrice. wa damay jéggalu ndax dama ko dama ko waroon tel cité ndax mom fépp fuñu dem di former jigen ni mom mi ngi sama wette wa man mi formatrice la mais dama ko jital ak madame bité ñom ño fi formatrice ci kër gi wa ñu dañuy dem di jappalé jigen ni di len defal formation céréales savon façon sabu bu né ba ci médical dañ koy def siro lepp dal lañ leen di jangal lepp lepp lepp loo xam rek jigéen mën war na koo mën di ci jëriñu di ci suqali ko daal ñu ci ba ci financement yi nga xam tamit damay damay financer jigéen ñi ñii di am ay 200 200000 ñi di am 150000 lo ñëmé rek ñu financer la ko nga jël ay 100000 francs waaw. non dañuy dañuy duggal caution ñun dañuy duggal caution dama leen di jappalé manam tay suma ma 3 millions dama koy verser banque jappalé ñom ñëpp ñu am caution ñu lebal leen ñu liggéey fay banque mais loolu ba tay ci lay revenir ndax loolu daf ñoo arrangé wul man suma sañoon ñom ñi nga xamné ay leader lañ. ki nga xam ne mooy président Macky Sall mu boole ñoo ki nga xam ne mooy le ministre Oumar Youm ki nga xam ne ñun ñu ngi nekk ci gannaawam depuis lors di liggéey ànduñu kenn ku dul moom ñu ngi nekk ci gannaawam mu utal ñu utal ñu fond boo xam ne jigéen ñi dañ ci mën a jàpp liggéey fond boo xam ne waxuñu ay 500 mille ak 1 million kooku arrangé wuñu ndax réseau bi bu taxawee fu fi mu ne nii ñun dañ cee béy suñu waar ndax dañoo nekk ci parti bi liggéey boobu ba léegi sonn ñu tàyyiwuñu ndax Macky moo ñu ko jaral ah moo ñu ko jaral wax dëgg yàlla waaw dañ ci nekk di liggéey 24 heures sur 24 guddeeg bëccëg suba ngoon nit ki liggéey amuñu salaire amuñu ndombal tànk mais quand même war nañoo am fon boo xam ne jigéen ñi mën nañ cee yëg seen bopp ñun ñii ñu yëg suñu bopp ñun ñi xam ne ñoo jàppale jigéen ñi dem gox goxaan yaa ngi dégg di dem ci quartier yi guddeeg bëccëg ñu nekk ci quartier yi di liggéey kooku la président Macky Sall laa ciy woo mu boole ñoog le ministre Omar Youm Omar Youm nag lu mu fekkee faj ko macha allah yum Daba waaw ñu ngi lay sant bu baax nag dugal nga sa loxo ci biir kër gi bu baax a baax a baax dañoo bëgg nga yokk ko nag utal ñu ay financement baax boole ñoog borom projet yi nga xam ne ñuy financé ay millions ñu ut suñuy projet ut suñuy tool am nañ suñuy tool waaw boole woon nañ maag euh, benn bailleur boo xam ne ci affaire projet yi lay yëngu nee nañ ut leen tool am nañu tool ba pare fi mu ne ñu luy xaar ñun ay fonds rek la ñuy xaar fi mu ne nii pour commencer bay deer man mii laaj ma deer man mais deer am naa une semaine yoo xam ne 24 heures sur 24 laa daan nekk foofu fa lañ daan añee fa lañ doon def suñu outil projet. li ma dugal ci projet foofu xaw ma ñaata la dama fay samay projet ñu defal ma étude projet ma fay ko ba léegi amuñu financement toujours dama koy dama koy dama koy jooy le président de la république. bon xëy na tamit euh, dañoo dañoo amul taxawaay ba ca war daal waaw boo boo gisee amuñu ci financement DER yi ndax man damay dégg ñu ne ñii jox nañ leen 5 millions ñii jox nañ leen 10 millions mais ñun tamit dañ ko mérito ndax ñun dañoo yàgg APR. dañoo yàgg APR di ci liggéey kon nag deer boobu ñun dañ cee war a yëg suñu bopp maag jigéen ñii te kenn ku si ne kenn ku si ne nekk sama wer rek li topp sa ginnaaw kenn xamul ñaata la gisuñ seen bopp ah man de ñi ma boot ñëpp gisuñ seen bopp ci man maa leen di maay jóg ak ñoom di daanu rek di jël sama fonds propre di ko dugal ci banque yi ñu leen di lebal ñii deux cent mille ñii cent cinquante te dañu am difficulté pour fay ko ndax intérêt banque ñëpp xam nañ ni dafa xaw a diis bu ñu sañoon ñu am suñuy fonds propre kooku dama ci woo monsieur Omar Youm te tamit dañoo bëgg oto oto boo xam ne fu may dem ci dëkk yi ñu am oto boo xam ne dañuy jox suñuy gasoil ñu ciy def ndax dañoo fas yéene liggéey nag ndax local yaa ngi ñëw kii yaa ngi ñëw député yaa ngi ñëw te loolu yëpp ñun dañ cee war a wane suñu bopp waaw dañ cee war a liggéey nañ koy gañee dañ daan gañee école bii mosuñ koo bokk ak kenn dañ koy gañee à cent pour cent mooy école bi sama ginnaaw Ahmed Lamine Dabo waaw man maay seen trésorière dañ koy gañe tout le temps dañ koy gañe kon nag ñun comme dañuy gañe kay comme Macky nee na ku gagné am ndam kay wala nga am recompence kay ñun war nañoo jàppale ma jàppale sama jigéen ñi nag ah man jigéen ñee ma ñor ak góor ñi nga xam ne ñu ngi nekk man war a am financement war a liggéey dëgg yàlla madame Say Marème daal maa ngi koy woo ci social mu ñëw jàppale ñu daara yi nga xam ne moom lay joxe jigéen ñi di ko jàppale néew di doole yi mu ñëw jàppale jigéen ñi fi nekk ñu am ko ñun tamit mu ñëw wàcceel ñu ko fii social laa wax waaw développement bi tamit luñ ci mën a am nañu jàppale nañu gestu Marème Faye Sall laay woo foofu mu ñëw jàppale ñu ci ak honorable Sira Ndiaye moom tamit macha allah waaw ku am yëg la ku am yëg pas-pas la ci mbuur mooy Sira Ndiaye moo ko Omar Youm daal wax dëgg yàlla man sant naa leen gërëm naa leen ndax am na ñu yëg am na ñu baax nañu te ñu ngi ñuy geestu daal de temps en